tey jii njàngatu match Liverpool Real Madrid ginnaaw ba nga xamee ni football naan match ba ba mu jeex avant match bi ci Aladji Malick TV mu jeex ñu indi leen njàngaat yoo xam ni xam-xam a koy lal bu ngeen xoolee kii nga xam ni mooy numéro 6 bu Real Madrid ñu gën koo xam ci Nacho Fernandes doon doxal lu am solo ginnaaw ba nga xamee ni yëkki nañu final Karim Moustapha Benzema mi nga xam ni. décisive na ca final ba décisive du dugal bii kese waaye taxaw équipe am ba nu mën a gañe mënees na koo tuddee euh, décisive décisive it mëneen nañ koo tuddee ki nga xam ni mooy euh, Thibaut euh, Courtois mi nga xam ne ay kaam assuré woon na ko normal Vinicius Junior mi nga xam ni moom it doomu Brésil la boo xam ne taxaw na tey ci match boo xam ne match boo xam ne ci àdduna wala ngal kàpp ba mu dalee football ba tey match bi mooy bi nga xam ne moo ëpp njariñ ci carrière ëpp njariñ ci carrière ki nga xam ne mooy Fede Valverde ni nga xam ne moom it avenir u Real Madrid ci gone yi nga xam ne Real Madrid yaakaar nañ leen ci avenir footballam ca la bokk kii nga xam ni daa dikk rek bokk muy David Alaba ma nga xam ni ne Bayern minit ban ko koy jëndee wala bokk ban nu koy jox gratuitement nga xam ne ak contrat ma jeexoon xel yi jaxasoo woon na waaye léegi lépp a ngi tolloo Carvajal moom mi nga xam ne mooy màggetu équipe bi nga xam ne moo ne ci euh, loxo euh, ndijoor gi wala boog tànkum ndijoor ba nga xam ni ma ngi fay doxal ka nga xam ni mooy Camavinga fils Camavinga père ñoom ñaar ñi nga xam ne tamit euh, jamono ji ren lañu commencé yëkki Ligue des champions ci Real Madrid Ligue des champions boo xam ni gone gi nga xam ne d'origine bu ma juumul congolais la moom dootul fàtte ay bisam ci Real Madrid ndax commencé na fa avenir boo xam ne équipe bu Real Madrid bokk na ci ñi nga xam ne ñoo ko war a taw Courtois ba tey ñu dikkaat ci moom ak màgget gi nga xam ne vétéran la ci équipe bi nekk ci euh, Modric Luka mi nga xam ne Real ameel na la njëkkal ameel na njikkalit Karim Moustapha Benzema waaye ameel na njikkal ki nga xam ne mooy le maire président euh, du monde maire président boo xam ne tur wuyu na boromam ca la muy doxal ci wàllu xam-xam ak gëstu ak yor goo xam ne yor na ko gone yi ah manqué wun dara ci xalaat ak na defe loolu bokk na ci li tax victoire bi am tey waaye victoire boobu ba mu amee Real Madrid déception ci côté Liverpool yi ah, Sadio maane du doomu sénégalais boo xam ne sénégalais yëpp ñu ngi ci ginnaawam di sikkimu di naqarlu ah, li nga xam ne ah, moom moo ko dal muy perte gu mu perte bokk ak moom naqar boobu waaye journal bi nga xam ne mooy Marca nga xam ne ci Real lay dox suba ak jàmm ci kàttanu suñu borom inam moo nekk nii nga xam ne lépp mi ngi ko jagleel final